Amor may ngog de. Waaw Jules amoo amoon may la la andi fii. bëri nañ combat bu métti sama carrière combat bi ci gën a métti Jules Baldé ko bëreel. boobu fan la amee woon. Casamance xam na. Casamance ah Jules. ku daanoon. moom laa. nu mu la daanee. mais may la nga fi heure bi heure bi. ah Bantamba yow kan si Jacob Jacob waaw. Hmm. waaw ñoom seen combat maa ci nekkoon. waaw promotion bi. Hmm. jeex na coow li bari na. waaw te seen combat seen combat ñoom moo amoon moo am coow. ci hmm. Sénégal waaw moom la sénégalais yi di xaar. dëgg la man xaar mu ñëw leeral coow li lu ko waral. mais yow ban coow nga si jàngat combat boobu Jacob Baldé. manque d' organisation la rek. manque d' organisation. manque d' organisation la. waaw. moo am. parce que mhm. CNG am na noo xamante ne nii. war nañ ko mhm. war nañ dépassé loolu quoi. Mhm. mais lii gisoon nañ ko si Ousa Sow Jules Balde. Gris Bordeaux moo ko defoon moo ñëw yàq ko Naar Touré Gambien. waa ak Tafa Mbër kii. waaw Tafa Mbër Alioune Sèye Junior. waaw Ama Dia moo ko defoon. waaw dëgg la bon xam nga mboq dafa garaaw. waaw te nit nga sa nit.

takk nit. Hmm. ànd loxoom. waaw pour bëreeloo ko su bëggee dóor ak gauche bi coup bi du am force bi mu war am. yooyu yëpp tamit nañ ci bàyyi xel. Hmm. na ci waa CNG bàyyi xel. Hmm. waaw lay wax sa jigéen Ndeye Gueye. waaw Ndeye uh-huh. ko wax ni nii la quoi yàlla suñu borom mooy mooy dogal. waaw. Jacob daa préparé. waaw papa préparé. Jacob ànd ak ay mbokkam papa ànd ak ay mbokkam ku nekk def li nga xam mais nag le dernier moo li mujj yàlla suñu borom moom moo koy joxe te yàlla moo dogal lii nga xamante ne nii moom moo jàmm am ndéygee na sant yàlla hmm. jàppale waat jëkkëram hmm. gën koo jàppale parce que gis nañ ñi mu koy jàppale lii la ko daf mi ngi ci sëy mi ngi ciy jaamu yàlla waaw na si jaamu yàlla yàlla gën leen boole hmm. dafal leen jàmm te lafal leen cat avenir sa avenir papa Boy Djiné yow tey loo koy wax waaw papa nag ci wàllu làmb objectivement objectivement entre frères waaw su ma noonu moom damay pause làmb day pause day pause bouton pause bi lay teg day pause toog lu tax lu tax jël temps toog waxtaan waaw xool mhm. ndax moom war na nekk mbër mhm. wala war a nekkul war a warul nekk mbër mhm. parce que làmb dañ koy seet waaw ñu fi bëri ñu fi bëree dañuy seet quoi ñu law li waa def ko boo ko defee dina baax. Hmm. mais papa xëy na. Hmm. bu dee chance ne nekkul ci làmb mu xool. bu chance am nekkee feneen mu dem dabu ko. mu dem mu dem jëli ko. yow yow nan nga gisee. man damaa euh, damaa yërëm papa boo jine. papa booy nan nga ko gisee dama ko xam moo tax hmm. dama ko yërëm parce que dama ko xam. dafa rafet. dafa baax. te bu baaxee yàlla suñu borom da lay teg yen tolof tolof. waaw la moo ko manqué seen mbër pour yow. papa booy jine. dafa manqué safara dafa manqué li xaw ma fan la koy manqué mais bu duggee ci géew bi la koy manqué. bu duggee ci biir géew. waaw non da koy manqué. waaw. ba pare est-ce am na doole. Mm-hmm. bu dee am na doole. waaw. parce que ñaax warul ñaax doole quoi parce que ñaaxoon doole aussi Jacob. waaw daan na ko bu yàgg. daan na ko bu yàgg avenir Jacob. Jacob foofu gisee ah mi ngi ci. mu ngi ci. waaw Jacob mm. mooy doonu fa moo doonu Fallaye. moo mm-hmm. doonu Fallaye waaw. mooy Fallaye Baldé. waaw noonu la demee. dëgg la noonu la demee. démb combat Gris ban jàngat euh, nga si def. <laughs> comme que jeex na ñoom ñaar ñëpp yàlla na leen yàlla defal jàmm. waaw. ils sont au ils sont ils sont près de leur fin de carrière. ils sont près de leur fin de carrière ils sont trop près de leur fin de carrière. trop même. trop même ah. mais Balla Gaye lay né en 86. Hein ils sont près de leur fin de carrière. Jules Baldé nee na seen combat moo gën a Jules de nee na seen combat mo gëna neex. combat mo gëna neex combat xale c'est ah. normal parce que ñoom ñoo ñëpp ay attaquant lañu. waaw jën kër a commencé. bi ñu ñëwee fii taxaw bi paré ñom dégg nañ dëgg. Mhm. mais da nga né dañu nekk prêt. non ils sont prêts de leur fin de carrière. Mhm. tamit quoi qu'on puisse dire Gribor a fait 25 ans de carrière. waaw mais Balla a fait 17 ans. Balla a fait 17 ans mais a fait ce que. Mhm. un lutteur doit faire sur 10 ans Balla l'a fait sur 5 ans. deug la. 2005 2012 Balla n'a plus rien hmm. hmm. n'a plus rien à prouver aux Sénégalais. mais nit ñi dañuy wax démb si forme ñaari mbër yi loolu lan nga gisee si ñaari forme seen forme foofu lañu tollu hmm. mbër yi foofu lañ toll. ay mag lañu. waaw nekkatuñu xale. bëre yi neex na lu ñu bëri yow neex na la. torop torop. dama jël Abdou baax mu ne ak combat bu riche ñoom ñaar lañ bëre. bu neex lañ bëre bu riche. mais boo xoolee seen corpulence. xool ni lu bëree seen seen seen seen lenteur. d'exécution. waaw nga xam ni ils près de leur fin a carrière. Hmm. jege nañ ko. avenir Gris Bordeaux. amatul avenir ci làmb. waaw <laughs> ah, kon eh, ah. mais Gris ban avenir la amati ci làmb kan kan lay bëreel. Hmm. Hmm. xanaa may booyu chance. loolay avenir am ci làmb. amatul avenir ci làmb non kan lay bëreelati Gris Bordeaux amatul combat choc.

<laughs> waaw looy tàggatoo. di la bëggee di la ñaanal mais père bëgg nga fii. yow seet naa Ama Baldé yow rek yaa koy am. Ah, ama non xam naa man kër gi fii laa bokk. waaw xam naa secret bi xam naa ni nga def li nga def léegi noonu ah. waaw da nga ñëw toog dama ñëw rek toog jàpp sama jàmm. jàpp jàpp toogee dinaa ko koj <laughs> jàpp caan maa ngi lay déggee. waaw merci jërëjëf yaa ngi liggéey bu rafet. jërëjëf jërëjëf keroog seetaan naa la Alaaji Mbaye aussi. waaw nga découvrir ñu métier bu bees bi. waaw waaw non si yow laay rootee. waaw baax ñu ngi déggee bu baax a baax yu mel noonu soxla nañ Amadou Ba yaay doyen de la presse fan la. waa père maa ngi leen déggee. waaw xam nga man maa nekkoon élève Paye. waaw yéen maa nekkoon seen élève. waaw léegi booy yi si làmb ji. ma ah. maay seen doyen. mais booy yooyu ñan la booy yooyu ñan la. toute la nouvelle génération de reporters. ah à part man. ah. ñëpp ñoom leen loolu Modou Mbaye Modou Mbaye daa mbapat avant moo àgg fii daa mbapat dama fekkee dama fekkee muy xëcc fiil bu muy nekk fële bu nekk fii xëcc naa fiil waaw waaw waaw ante allahu akbar da nga tarbiwu tarbiwu naa ko mais mais ab est-ce que yéen ñaar yow sa pap loo leen dugg si néeg mu lay mosu leen am am échange. non non mosuma jox leçon. ah. en fait la leçon dama le terrain. sur le terrain si li liggéeyee laay ah, ah. a la mais ma war a wax dara xanaa ma ko ma ne ko da laa war a wax. waaw mu ne ma dofoo. dëgg xam nga li nga war wax. Ah, xam nga ak wax. dëgg la mosuma wax lu ñaaw. waaw kon bul wax lu ñaaw. nekk doom békaay ba yomb na. déedéet. yan ja yan jàngal yan jafe-jafe ngay jàngoon nekk doom békaay ba ci waaw. parce que ci làmb boo waxee rek. waaw am na fu ñu lay féetale. dëgg la xam nga làmb boo xamante ne nii. Ah. ñi ko bëgg ñi koy seetaan ak ñi koy pratiquer. dëgg la seen esprit sportivité dafa des. dëgg la ndax boo analyser dañuy jàpp ne dafa far. waaw or que xamuñu ne amul particulier. dëgg la. jafe-jafe yooyu daf ci am. dëgg la ak léeg-léeg nit jàpp ni. waaw da ngaa faral diw. waaw sa mbokk la affaire yooyu. dëgg la te demeewul noonu. waaw mais yow xanaa yow ñëpp nga faral. waalo Géejawaay Pikine yow fu ne ñu jiñ la fa. c'est ça le problème kon ça veut dire que yaa ngi def sa liggéey. waaw man nag noonu laa ko jàppee dama jàpp ni. Ah. macha allah liggéey bi mi ngi baax. waaw parce que mbër rek. waaw am na benn camp bu may moytu. dëgg la te du waa Pikine kese. dëgg la te du kuy bëreeg Pikine kese. camp ah. yu bëri. Ah. dañ naan waaw la faral. Ah. ñi ne la faral. dëgg la ñi ne Modou Lo mooy la faral mais loolu yëpp sant la. sant yàlla ñu gis bu. bu combat amee day mel ni ku jëfru day def sax yaramu neen ànd ak public bi kii loolu sa sa style boobu nan la ko nan la ñëwee si yow style boobu. waaw parce que dama gisoon Père Bécaye. waaw def lu mel noonu. waaw doon na dem ci supporters yi. mais bu taxawee da daan def nii ak supporters yi. waaw muy foo ak ñoom xëy na âge am mooy ko woon yéen yi. waaw mais man yàlla dogal na. ma nekk jeune. maase ak la génération bi nga xamante ni ñu ngi ñëw ci làmb. benn yoon la ma arrivé c'était le 4 avril 2000 2015. waaw ci combat Siteu la woon. ci combat Siteu la woon. Siteu Zarko. Siteu Zarko. waaw moo bëre 4 avril wala moom. waaw ah, ah. ci làmb ji. Ah. jub ñoom ñu summeeku. ma summeeku. ma summeeku yaram leen. après image boobu jooyloo na ma sax. ndeysaan ndeysaan. walaay si. ma foo ñoom foo foo affaire bi nag mu jub ma koy def ci bis yu bëri. am na ci bis yoo xamante ne daf may marqué. dëgg la après bu ma ñëwee bu ma seetaanaatee image bi damay jooy. da ngay jooy muy combat Balla Gaye ak Gris Bordeaux. waaw sant nañ ci. 2017 y avait Balla Gaye Gris Bordeaux. waaw 2017 y avait ma jug presque la moitié du stade ñu summeeku. Uh-huh. comprendre style bi et comprendre que ces jeunes. ñu foo. Uh-huh. def nañ ko fii mu rafet. juste rek pour wane ni ay ndaw lañu. dañuy foo et que affaire bi ñun mun war nañoo wan wan nasaraan que am nañ suñu façon ambiance. ñoom am nañu ambiance. bu Marseille di football bu Saint-Étienne di football wala bu Real di football. waaw dañ leen di gis ñu def yaramu neen. am seen façon bu di supporté. ñun nag tey jii balaa ñu xam ne am nañ façon sax. Sénégal doon bëre ak dëkk bu mag fii. waaw fii mu doon dëkk ak dëkk ci la ngeen di wan ne ñun. Ah, ah. ñoo moom supporté làmb. waaw mais jël flambeau Bantamba sa papa doxal ko pendant pendant dix ans douze ans nga ñëw jël flambeau flambeau yomb na téye flambeau Bantamba. téye flambeau PPK yombul. Ah. mais da ngay da ngay jéem rek parce que moom moo ñu tàggat ci loolu. moom moo ñu yar ci loolu moom moo ñu yar ci xool façon bi mu liggéeyee. waaw muy liggéey bu dëgg. Ah. liggéey boo xamante fulla la ñuy def ak fayda. Ah. liggéey boo xamante ne nii daf koy def. Ah. ci professionnalisme. ñu xool loolu et eh, yàgg nañ ci. waaw yàgg naa ci mën naa ni. mën naa ni ay deux mille deux mille sept. waaw deux mille sept. waaw ba tey maa ngi ci. dëgg la sopp perpégaay xam nga. Ah. bu fekkente ne yàlla dogal na. Ah. ma du waroon fubal fubaluma. waaw ma gaañu. bi ma ko bàyyee ma ne dama koy topp. waaw ma ne nag damay jël loolu def ko sama métier. kon damay xool yu bëri yu baax yi muy def. Ah. di xool ni muy liggéeyee. mais nag lu tax mu yomb ci man nii. waaw c'est parce que xëy na dañoo gisatul l'image de perpégaay. waaw la personne de Bégaay moo taxawatul def Bantamba. waaw mais c'est toujours Bégaay qui fait Bantamba et c'est qui faisait Bantamba avec Bécaye qui fait toujours Bantamba avec Modou Mbaye ce qui veut dire du métti ñoom équipe bi nekk sama ginnaaw ñoom ay école lu ëpp lu ci ëpp ñoom kulinoo suma ànd ak moom moo ma moo ma gën a xam li muy def des fois moo ma naan jëlal lii defal lii ndax moom mooy sama juma Bruno moom laa duggandool ci liggéey bi sa papa médul la doon liggéeyandool mais man Bruno laa duggandool ci liggéey bi mu nekk équipe boo xamante ne ñoo moo tax ñu ngi si Bantamba da ngay si mbedd bi kaf foore feeling càcc boobu foo ko jëlee zéro stress boobu loo ko jëlee. zéro stress boobu. waaw yow bokk nga ci lu tax ma koy continuer ko. dëgg la parce que defoon naa ko yàgg naa. waaw dinaa fi ñëw. waaw waaw. mais zéro stress bi lu koy waral. ah. dañoo toll ci moment boo ah. xamante ne nii. xam nga bantamba. le sens de bantamba se faire. donc ci penc bi ko war a defee. la et lamb c'est public. il faut donner la parole aux Sénégalais. leur demander leurs avis. Uh-huh. ci li ñu xam ci mbërtaan. Uh-huh. lu ñu xam ci mbërtaan lu ñu xam ci combattant. Uh-huh. naka la ñu gisee lan la ñu war a def. dëgg la des fois damay ñëw Sénégalais ma ne ko lan la a def. war a def. waaw mu joxe xalaatam. ma gisoon nga defoon benn reportage bu doy waar si àll bi. Linguère la woon xaw ma ngay jox micro booy jox micro jaaykatu soow yi loolu bu mu demee woon. te meilleur reportage. waaw boobu reportage remarqué ma. waaw bi ma ko defee ba pare yow yaa ma woo. waaw nga ne ma vraiment je tenais à te def dafa jéggi làmb. dëgg la da ngaa dem ci culture. Ah. tey man depuis jour boobu. waaw yàlla seere na ni wax boobu nga ma wax dama ko jàpp. dëgg la région bu ma mën a dem boo seetloo. waaw damay jël seen aspect culturel. Ah, ah. damay dugg ci biir nit ñi. noonu la ma dikkalee woon c'était free. dëgg la ma àndoon ak Bruno. ñu wàcc fenn. mu ne ma jëlal micro bi ñu tooñ. ngeen toog lekk ji bi parfois sax. ñuy toog des fois di lekk ji bi ci mel ni. may jox micro ba jox micro koo xam teggul olof. wallaahi te sénégalais la. dëgg la mu nekk reportage yoo xam dafa lay marqué. ngeen mais aussi yéen yu mel ni yéen ñi nga xam ne yéen suñu ginnaaw di ñu dooleel soo déggee mën na la dooleel mooy nit def lu baax nga woo ko loolu dafa garaaw te man yooyu may marqué sa papa daf ñu jàngal ci yow daf ñu wax yaay kan moo tax boo ñu woowee wax ñu dafa am lu ñuy def macha allah ak ñeneen ñu mel noonu mooy tax yu bari buñ ko xasee def su ma amee ñu mu marqué rek dañuy xam ne loolu baax na nañ ko continuer Ama am ah. Modou Mbaye jaaxle la si question boobu Modou Mbaye téye na gémmiñ waaw Modou lan la téye si gémmiñ depuis cinq ans depuis cinq ans presque. waaw presque a ci Covid ba la woon. waaw métti na quoi ñaar déjà. waaw métti na ci ñoom promoteur yi. parce que taxawal combat bu ah. na wér na. Ah. avant loolu amoon na combat amul. ay ay ay am na ci. Ah. li tax ma mën a gëm ni combat bi dina am. waaw. promoteur bi moo koy mën a wax ma gëm ko. te yàlla ko yàlla kattanal ba mu am. amiin amiin. combat bu lamb soxlaa ñu ko. dëgg la. waaw moo ngi noonu joxe na micro bi toujours il est professionnel toujours moo ngi nekk entretien ak man mais joxe na micro bi pour jëli son jëli image ah vraiment Modou chapeau maa jël sa temps nag amul solo maa jël sa waaw ah. waaw waaw parce que Ama waaw daa yàgg a topp Modou Lo daa yàgg a topp depuis 2012 depuis 2012 dëgg Modou Lo. Ah, ah. ba 2022 boo xam dafa war a am. Ah, ba pare Modou. jël roi jël couronne roi des arènes. waaw fu mu ko jëlee. Pikine. ama seen ay magu ama. waaw loolu a am. kon combat lay doon boo xamante ni ñu ngi ñaan yàlla moo am quoi. am mais ña ngay lan ngay wax ñun ñi ngay wax ne Modou Lo léegi mu bàyyi làmb yow li ko fal. bàyyi làmb bàyyi li ko waaye làmb bàyyi lu tax bëgg ko. dëgg ah. lu tax bëgg làmb lu lu tax bëgg Modou Lo làmb parce la te eh, moom yi làmb yóbbu na foo xam ne ci àdduna moom warul bàyyi làmb warul bàyyi làmb déedéet waaw comme plus dire mais ku ne bëreetul wax la nag garaaw Modou Lo warul bàyyi làmb parce que Modou Lo lu mu doon làmb ko ko def ah appel boobu rëy na Modou Mbaye dégg ngeen lu mu wax ci Modou Lo mais dernière question yow est que yow yaa ngi ci nit ñi nga xam ne d'accord nañu Ama Baldé Lac de Guiers 2 yow est-ce que tu es pour sportivement je suis pour sportivement tu es pour dafa garaaw dafa sew dafa sew moo gën a sew ah, ah. sport sport mën naa boole waaw mais ay mais ethnie yuy bëre mën naa lu garaaw. sportivement parlant je suis d' accord. waaw bëgg am. mais bu naree am lu mu yàq ci mboq gi yàlla bu mu am. dëgg Sénégal mboq la dëkk la bu rafet. ànd bu rafet la. bu dee Ama ak Lac bu ñu am coow ci seen nan bëree. bu dee bu ñu bëree daal dana coow ci mboq gi yàlla bu la am jàmm. question question piège Balla Gaye 2 Gris Bordeaux setul. Balla Gaye 2. Gris Bordeaux le 7 août. le 7 août waaw. j'en parle pas. j'en parle pas. est-ce que. li waral loolu. je peux il est toujours professionnel et eh, restera professionnel donc maa ngi lay gërëm di la sant. maa ngi lay di la ñaanal vraiment ki nga bëgg a yóbbu Bantamba yàlla na ko yàlla àggale. amiin vraiment di la mérite. amiin ki nga remplacé sax sama xarit la. waaw sa xarit la émission boobu. waaw xam nga kañ la judd. waaw le 20 décembre 2005 la le 20 décembre 2005 jour la lamb ngi le 19 décembre 2005. le lundi 20 décembre 2005 si la Bantamba juddu Bécaye Mbaye dawal ko lu mot 10 ans jël ko jox ko doomam ki nga xam ne mooy Modou Mbaye Modou Mbaye depuis boobu mu koy dawal si dawal bu rafet si dawal bu am maanaa si dawal boo xam ne feeling la dawal boo xam ne si âge am la ko defee xoolul ma Samba xoolul ma Demba kii mooy kii mooy Modou Mbaye nañ ko bàyyi xel nañ ko ñaanal bëgg yóbbu lamb ak fu muy jéem a lamb yàlla ko yàlla defal loolu loolu il est profité nee na message de Bal Tamba le 20 décembre 2005 jërëjëf Modou Mbaye. merci merci merci. waaye Modou Mbaye Modou Mbaye Ngok Modou Mbaye Ngok le grand promoteur petit. kii du dara petit promoteur dara. le meilleur promoteur le meilleur promoteur. sant yàlla rek. dem nga animé la da ngay jabal nit ñi mu demee nga téye un yi waaw waaw waaw ñoo moo ñu jox affaire yi. mais gars yi ñoo namoon làmb. Sénégal ñoo namoon làmb xam nga namoon aussi signature de contrat yu am niveau. namoon signature yoo xam dégg mbër yi ñu waxtaan. à mm-hmm. waxtaan comme ni amee habitude di ko def parce que HBK Ndiaye dafa am lu mu innové ci làmb uh-huh. te loolu gëjoon a am ci làmb bon avec cette nouvelle saison 2STV permettre ma jox ma ay moyens ne ma liggéeyal ak promoteur. yi bon ñu nekk si nag ñu ngi ci quoi ñu ngi jéem comme ni nga ko waxee rek ñu ngi jéem a gën a mën a sax le plus longtemps possible pour lamb gën a mën a dellu fi mu nekkoon dégg naa sax dañu maye direct ci kanam waaw dañuy maye direct dimanche prochain demain bëgg nañu def direct bëgg nañ maye benn direct may ko sénégalais yi le 27 aussi bëgg nañ maye beneen direct may ko sénégalais yi lolu yëpp day dépendre ci promoteur yi parce que pay-per-view dafa am loo xamante ni daf koy def ci làmb te baaxul parce que ñun ñii dañuy ñëw ci làmb mais bu ñuy ñëw dañuy bàyyi suñu waa kër wala dañ leen di jëndal ay code bàyyi leen fa mais bu ñu leen jëndalee code bàyyi leen fa bu ñu ñëwee dañuy dégg ñi ci ëpp dañ naan image yi ñuy jot baaxul connexion bi baaxul lii ak lii baaxul xam nga léegi nag ñu bëgg a tàmbalaat gars yi direct yi nekkaat ci loolu waaw loolu daal moo ñu tax Ama ama Balla Gaye 2 Boy Niang ak Jackson. Euh, ñoom euh, Jackson Junior. Siteu Papa Sow démb. Ada Fass Zarko. ban waaw Balla Gaye 2 Boy Niang xawoon na compliqué gérer. waaw parce que derby la. biir antenne bi. waaw ci biir antenne bi ma xuloo. xeex. waaw parce que euh. c'était normal. Ah, ah. parce que bu ma ko deful woon sama suma émission du yegg. te gàj.

ñu def loolu aussi mu réussir wa falee may imposé wu pour xamal leen ni tay fi suñu kay la fi du bërëb yi ngeen di yaa waaw parce que gars dañuy faral di am yenn comportement ci yenn bërëb yi mais su fi ñu nekk Alane Ndiaye dafa def matériel bu cher dafa xaas bu bëri parce que am na loo xamante ne buñ ko nangoo mu fay am rek ci ñun la quoi nan nga gisee woon Bala Gaye Boy Niang seen état y avait une tension métti woon na mais ñoom ñaar ñëpp pare nañu physiquement Bala Gaye mi ngi liggéey Bala Gaye mi ngi liggéey Boy Niang am na doole Boy Niang xale la Boy Niang pare na mais Balla Gaye mi ngi liggéey Balla Gaye bi ma gis bu le premier janvier wi ay supporteram duñu duñu duñu ko mere ci état physique déedéet je pense pas démb na nga gisee coow bi entouré Zarko ak Ada Fass qui était le principal euh, li gis nga lépp waaw coow ci biti lacrymogène yi agression yi waaw euh, jet de pierre yi waaw loolu mënul ñàkk ci combat boobu loolu mënul ñàkk ci combat boobu parce que ñoom ñaan ñëpp ñu ay mbëru ndakaaru lañ comme ni ma la ko waxee Zarko am fu mu bàyyi ko am fu mu bàyyi ko mu ne combat bu am solo mais loolu nag dama ci xaw am benn naxarlu bu ma ciy def moo dafa ay nit yu ay page yu làmb ñi nekk ci diaspora bi ñi nekk au Sénégal ay page yoo xam dañ leen di suivre uh-huh. te page yooyu baaxul ñu fay dugal yenn image uh-huh. billaahi li am ci violence ci football amul ci làmb billaahi ci àdduna li am ci violence ci football ay lacrymogène na fa li fay am amul ci làmb mais yi am na ci image yoo xam du génn mais ñun dañoo am ay page làmb ba pare bëgg di wane defetu làmb nañu bàyyiwaat loolu xel yenn yi seen ay page Instagram la ñuy nekk ñenn ñi nekk seen ay page TikTok ku ci nekk di wane image boo xam bëgg wane be bëgg a joxe bu négatif te loolu baaxul man de wax dëgg yàlla prendre na ci conscience amna na image yo xam dootuma ko wone te duma ko wone parce que day nuire lamb mais lamb ngi dox lamb ngi neex seen sen Zarko ak Ada ah. day metti coow tangay la ba ba bamuy jeex ba bamuy jeex ñaari mbër sen état dafa physique Ada Ada dem bi mu taxawee ci li gis ah. Zarko dafa tolloo Zarko dafa jaaxal ma tolloo Zarko maa du melul nit Zarko aussi dafa wàññeeku wàññeeku yaa nga koy wax ma waaw ah. mais aussi

Mau ko raw parce que ñii ay xale lañ. ñii ay xale lañ ay xale lañ. maa ngi dugg si biir nga ñëwaat. jërëjëf maa ngi lay xaar si biir. kii mooy Modou Mbaye moo téye làmb ji. maa ngi sëñ yàlla na yàgg. Sabe, sabe. Sabe, sabe. lamb bu ma def promotion bi ak bu ma def incha allah léegi rek waaw léegi rek incha allah dina baax incha allah laa bi eh ñëwal le 27 le 27 lu rëy la ñuy waaj a def après naa ko annoncé ak ndigal lu rëy

nice la amuñu ko du ma ne kenn yàlla nga leen di du ma ne kenn yàlla mu ngi leen di gis moom kii làmb dafa tas Papa Boy Djiné bëre Papa Boy Djiné dafa bëre làmb ci tas ñu am ko lu jàmm police am ñu si gaañ billaahi quatre heures du matin la tëdd barka Muhammad ku baax la man nag ma waral kenn cere vraiment ñu ngi waaj lu rëy dimanche incha allah. li ma gën dëkk bi neexul. waaw biir yi yombal na lépp. tey li nga programme li nga supporter. programme baa ngi nii. mettre le paire tey ñu ngi si làmb ñu ngi tëgg non non ay promoteur lañ mais dañoo mettre le paire xamatul lu ñuy tëgg parce que yow la tamit Gaston Mbengue ñu ngi koy gërëm liggéeyam rafet na jaajëf. waaw mais dëkk bi neexul supporter dañ ko def 2000 rek amateur ñu def ko 3000 loolu ñu def ko 5000 di jox ñëpp dig daje le 27 novembre mais jëlal wax ak sa waay ak sa waay ana Mouta Mouta. kii day liggéey fàttali nañu soo leen. mais du ñu wax ñoom di di daje rek le 27 incha allah Iba Kane ñu ngi lay gërëm di la sant vraiment tey xam nga bu rafetlu ak ndaw xam nga bu mag yaa ngi rafetlu ñu ne jëloon Mor Mbaye gëwal. loolu loolu day Sam Mbaye Mor Mbaye bu Mor bu bu Sam deewee mu deewee ko kii mooy kii mooy Mor Mbaye day Sam Mor lan lay wàññi ne la sa waañ ak doole di waañ ak ak ak ak ak waañ boo xam ne daal ñu ci woo Sénégal gépp ndax xam Sam Mbaye xam xam capacité am xam mbër yi mu tëgg digal sa bas Baldé ak digal bu yeex doo am place ndax digal Balla Gaye boo koy naam mi ci combat sa ko Baldé Ama Baldé ko naam mi ci combat mais digal combat bi ñor na leen ñor koo xam ne sant yàlla daf leen set waaw maa lay siyaar non yow ñoo far yow saa yoo ma taxaw loowee damay taxaw saa yoo ma taxaw loowee damay taxaw parce que yow alaaji bekaay Balla Gaye ko Balla ñaari combat yooyu yëpp day am ñaari combat yooyu yëpp Modou Lo mooy problème bi parce que xamuñu waaw waaw nekk CNG moo ñu war a jox lu leer nee nañ Modou Lo indi na certificat de guérison léegi bu indee certificat de guérison moom il est apte pour lutter bi organisé woon combat ak Ama Baldé moom fan la nekk. analyse Nicolas yi c'est ça le problème parce que ñoom ñaar ku ci nekk jot nga avance ay mbër yu jot avance c'est pour ñu bëre loolu mooy sama problème bu fekkente ne Modou avance bi mu jot ci Luc Nicolas yi empêché wu ko mu am combat war na mën a bëreeg parce que c'est un lutteur Ama Baldé mi dafa jël Gris Bordeaux ñëw ba combat bi jege si mu blessé kon kooku mënatul bëri Boy Niang moo fi nekk moom ak Modou war nañ bëri bu dee bëri nañ ba pare am Modou Lo Ama Baldé bu ñu paree ñu bëri bu dee demeewul noonu bu dee dañoo ñëw ci Modou Lo Ama Baldé mu am bu combat boobu taxawee ba ñu bëree ba pare en aucun cas Modou loo day ñëw bëre si waat te bu ñëwee di bëre si waat Modou Lo amatul adversaire ci kaw parce ñi ci di kaw ñëpp bëri na ak ñi bëri na ak ñoom deux fois ñi bëri na ak ñoom trois fois kon bu ñëpp bu fekkee ne day bëre si rek ak booy yi moo tax ma ne la ñoom ñaar ñëpp lay bëri bu indee division à Pikine ma xam ne waa Pikine dëkkuwuñu Tyson bëri na ak Tafa Gueye Baboy Tafa bëri na ak Tafa Gueye te dara ñaawul Balla Beye 1 bëri na ak Tafa Gueye te dara ñaawul Pikine nañu réglé Pikine nañu bàyyi seen wax yi ñuy wax ay waxu Pikine lii day yàq Pikine dara yàqul Pikine Pikine bu yàqoo ci ñoom ñii fi nekk la mu puso bi mu réer seen loxo moo leen nar a dal am na loxoom dafa ñaaw am na wax yu ñaaw depuis trois ans quatre ans ñu naan Pikine lii Pikine lii booy ñaa Ama Baldé bokk adversaire daa war a yàq Pikine kon day wane ni ñoom ñaar bëggante wuñ du dëgg wala seen staff bëggante wuñ fii yàgg na am ay mbër Sa Thiès ak nañ bàyyi wax boobu nañ génnee wax boobu ci seen xel Pikine nañ bokk ndey bokk bàyyi dañu bàyyi waxu Ama waxu Boy Niang nañ jéem a fexe seen mbir yi avancé ñoom ñu avancé loolu moo ëpp intérêt Balla Gaye daal la ci daal Balla Gaye mais respect xaaral xaaral xaaral si Balla Gaye numéro 2 ama ni lam ci làmb mi ngi fi toujours rajo na dem entraîné Balla na dem faju bu yaramam amee feebar dana faj ko mu ñëw mu entraîné Balla Gaye doo mbër la doomi mbër la bari na supporter nit na ko te li muy def kon amatul lenn loo xamante ne nii Balla moom lay prouver ci làmb na dem entraîné bu demee entraîné ñëw gaa yaa koy xaar c'est un champion ko ma seen làmb la mais su ma doon ba faju ba wér ba pare soo koo bëre damay faju ji ba wér ba defaru ba pare ba pare soo ko ñëw bëri commencé déedéet d' accord ma su ma la moom dinaa dem faju ji ba ama seen c'est un sportif moom du bañ loolu du bañ bala Gaye dem faju ji ba at soo ko bëri moom ndax bëggul daan Balla Gaye ñu naan Balla Gaye wérul bala Gaye tamit bëggul moo ko maseen ñu bëre ba pare mu am ci defet wala lu si mën ñu naan Balla Gaye daa feebar kon bala su ma la moom dinaa dem faju ji ba at ba taxaw ñu wax Sénégal yëpp ne leen pare naa ma soog a ñëw bëri Boy Niang fépp Boy Niang buntu boo tëddi ci làmb mi ngi fa taxaw buntu champion boo tëddi ci làmb Boy Niang mi ngi fa taxaw moo tax ñu ngi bu baax a baax di ko bégee waaw di ko wax ne nag baax incha allah làmb ju rëy ñemewu ma ci wax.